taxaway bi niñ ko gisé moy ñun ay murit lañ té murit mom jëfëndigal rek moko war kon sëñ bi mom bu waxé ñun amatul luñ ci ték waaw kenn ku nekk fa nga nekk man nga fa tok jang sa alcorane jang say khasida berne li ngay berne comme sëñ bi non la ko waxé rek ñun non lañ koy défé ndax it ay taalibe lañ ndigal rek lañuy dégglu dañ koy rafetlu ndax it bu ñun ay sénégalais lañ té tim amuñ benn moyen bi kon tey bu feebar bu duggee si dëkk bi war nañ ci mën a moytu ñun ñëpp daal waaw di sóoraale li mu waxit ndax it comme njiit la moom lañ fi tegit comme bu waxee rek dañuy nangu loolu ndax it lii du mbiru politique daal mbiru Sénégal la ñun ñëpp waaw bu feebar bu ñëwee kenn munu cee mucc. kilifa diine daal dañuy rafetlu seen taxawaay ci président bi ñun sëñ Mountakha rek lañuy ñuy déglu sëñ Mountakha comme jël na dogal na fu waay nekk nga màggalee ko fa kasarayeb gi ñun fu nekk rek dañ ko fay màggalee. Touba nag ña fa dëkk mën nañoo màggale foofu Kazu Rajab bi waaye waaye ñun waa Colobane moom fii lañ fas yéenee màggale Kazu Rajab bi. ko kilifa diina yi tamit lu ñu jë rafetlu naa ko parce que ñoom ñoo mun a jàppale daal président ñoom ñoo ko mun a jàppale parce que damay gis ci ay ci net ay ay nit yu wax naan ay bu ma sëriñ bu woowoon tey damay dem lii dafa nekk loo xamante ne ñun daal ñoo war a jàppale suñu bopp. avant kenn du ñu jàppale ñun ñoo war a jàppale suñu bopp parce que loo xamante ne dafa doy waar daal ci dëkk yëpp avant. ken di wax dal war nañu jàppale suñu bop sëriñ yi tamit li ñu def ñu ngi koy rafetlu bu baax dal waaw di ko rafetlu rek te même avant mu koy joxe sax nit ñi waroon nañ ko jël parce que lo xamantene dafa dem ba jaaxal yeneen réew yi Sénégal matul wax xam nga avant mu koy jël man mom jëlon na sama décision bop parce que man talibé cheikh la chaque année dama doon dem ziar di dem gamu mais ren dama jëlon décision ne duma dem ziar jël na dogal néna bép ndaje mu ngi koy téré jël na école yi tëj na jël na tribunal yi néna na na mais dama gis ne rafet na nice na quoi parce que euh, xoddeeku bala ngaa lakkale mais bala ngay xoddeeku bala ngaa lakkale ñun feebar bi damay wax ne ñun du Sénégalais yi la dal du Sénégalais yi ñun en tant que tel ñoo feebar mais dafa am fu feebar bi jógee wàcc fi te tant foofu mu ngi jógee foofu di wàcc ba léegi feebar bi mënu ma wax ne du tëj école yi wala lii mooy solution bi quoi c'est bien beau ñu def ko nag mais dama bëgg ñu jël ki nga xam ne lay feebar bi jógee ko muy fenêtre boobu ñu fatt ko bu dee yi vol yi nga mooy wàcc à chaque fois bu wax ne cas rek la cas boobu extérieur lay ko pourquoi pourquoi pas ñu fermer foofu noonu noonu fi nga xam ne moom lay mbir bi lu ñu jot am si dëkk bi ñu dem leen si benn place milieu boobu noonu liggéey jëm faj comme ñoom ñi ngi wax ne faj na ne leen quoi parce que instant bi nii boo xoolee 2 cas yi boobu depuis boobu na 2 semaines gisuguma beneen cas ñu si dolliwaat na faj nañ ko quoi est-ce que kun faj boobu réalité vraiment am na man man feebar dama ko gëmu à 100 pour comme ni muy ni ñoom ñoo ko fi indi ñoo ko indi ampleur bi ñoo ko jox ampleur bi ñu koy waxee Sénégal nii fu ñu ko tolloo waaye bi ñu ko jox nii non amagul fi quoi man parce que man tarawu ma nelaw tarawu ma lekk tarawu ma def dara sama activité maa ngi koy doxal comme il se doit mais dama wax ne tant que ngi def nii bàyyi avion ñuy dugg di génne chaque jour ñu ne am na chaque jour conférence de presse ñëw ñu ne am nañ benn cas ñaari la nekk goo xam ñëw wàll ko mais ñi ñuy jógee ko foofu duñu leen ñu def li nga xam ne nii ñoom ñu yeneen réew yi am fulaak faay ko def ñun mënuñu ko def wér-gu-yaram kenn mënu ko jëndaa ah. wér moo jar lu nekk wér mooy tax a ñëw si marché bi jaayante wér mooy tax ñi mën a def suñu activité bu ñu bëgg a def mais wér gi dafa am système bu ñu war a jaare leneen beneen méthode bu mooy tëj école yeeg tribunal yeeg marché yi hebdomadaire yeeg marché yi nii ñu dajee ñu ñëpp parce que gisoon ni doomu aadama il faut que mu dund pour nekk ñun bu ñu mënul dund pour nekk duñ exister xam li ma wax léegi alors naka la ñu exister te te mënuñ ah, suñu koom suñu activité moom la ñu dundee ñun amuñu salaire ñooy fay suñu bopp suñu bëree taree suñu xëy ak suñu wàcc ñun fan la ñu jëm après alors que chaque jour avion yi continue di dugg Sénégal di dugg Sénégal di fii